benn maire la bu nekk fii ci banlieue bi man ak moom dañ doon génn si benn lieu boo xamante ne fee la nekk place de l'indépendance foofu la ma gisee ba ma gis sama benn collègue gis sama collègue bi kii kat dama ko nopp affaire expliqué. sama collègue bi jour boobu lay doog a am sama numéro ba jox ko ko mu commencé di ma woo. ñuy gisee ñuy gisee ñuy gisee ñuy gisee des fois mu may woo ba ñëw na sax ba sunu kër. ba seet si ma benn guddi ak beneen jour bi nga xamante ne jour boobu si laa tombé enceinte jour boobu yëpp moo ma indi. presque mën naa ne weer bi ay benn yoon la parce que moom am naa liggéey ñun tamit amuñu jot bi ma ëmbee nag ma envoyé ko message fekk boobu nekk ma woon Dakar fekk man boobu dama ko yëg rek ma amoon mission ba ma doon dem bi ma demee noonu bon bi demee mission fekk ma ni comme mission bi yàggul dix jours lay doon naa bàyyi ba dem mission ba ñëw su ma ñëwee ma xoo entre temps avant may ñibbisi si dix jours yooyu moom mu woo moom mu woo suba teel ni ma yow diw foo nekk ma ne ko de dem mission maa ngi ni voyage mun ma man de damay voyager ci voyage yu maire yooyu ma ne ko ah kañ ngay ñëw mu ne ma ah man de dinaa fa def dix à quinze jours affaire yu ñu expliqué ma ne ko ma daal di toog ba mu yàgg ma ne ko ah kon baax na mu daal di coupé ci laa ko envoyé message ni ko man de diw buggoon naa la wax dara avant ngay dem comme da ngay dem nii dama dama tombé enceinte message boobu sax envoyé naa la ko gis nga ko mu ngi noonu ma ci tontu yëpp gis nga ko. mu ma kon de di nga ñibbisi moom moom appel yi ñu doon bu man ak moom affaire yooyu mu ne da ngay ñibbisi affaire yooyu ba wari ma fi. ma ñibbisi ma ñëw mu indi benn xaritam su waa xarit dix ans wu xaritam xaritam bi ñëw fii di ma seet si di ma kii di ma fu ni ma diw ba mu wuy ko mu ne ma léegi xam na ngay def pour pour ñu confirmer grossesse bi da ngay ñëw ñu def écho fekk moom moom xamul ni woon man avant may dem voyage def naa sama écho ba pare ba teg léegi nag moom ñoom bi ñu demee ba ci jour bi may defee écho bi ma ne ko man de bëggoon naa ko wax sama yaay affaire yooyu mun ma non non non koy wax sa yaay expliquer expliquer expliquer ma ne ko waa garaawul boobu tamit man boobu man sama assurance man xamalal la boobu man comme moom yónnee na rek te man tamit bëgg naa prouver ni man je suis réellement enceinte ma daal ko wax d'accord nañ dem ma daal di ànd ak ñoom moom si xarit bi si boppam jotuma dem ak ànd ak moom moo ñëw ba fii jox ma dix mille francs yi nga xam te moom laay jox sage femme bi sage femme bi ma dem ba foofu. ma koy woo far yàlla jotuma ko numéro ñaari numéro sage femme la ma te bu li ma lay wax ñaari numéro sage femme benn bi kenn ki moo nekk si labo kenn ki sage femme la ma dem foofu ñu ñu defal ma écho sage femme bi daal di jël écho bi daan ne ni non écho bi yow li nga wax nii du kii fekk ñu ma laaj ma sama date dernière rek daal ma wax leen comme éco bi nu muy passé ñoom ñu ni déedéet am nga 15 jours avant lii man leen déedéet loolu mënul nekk parce que lii man bi ma defee écho ma daal di ñu xeet sama écho. ni leen xool leen lii mënu nekk à l' espace de 15 jours nga bëgg fee émaat beneen écho boo xamante ne da yow dañuy rawante un mois mënu nekk ñu daal di bàyyi noonu ñoom ñu daal di def seen conclusion ni lii la lii la lii la lii la lii la ñu daal di bàyyi man fi ne nii man li ma li ma leen njëkk a rawee fi ne nii ñoom bu ñu waxoon ni comme ça man dama dama am ñoom seen éco rek bu fekkoon normalement ñoom ñoo wax dëgg kon mi janvier bi si laay am doom instant bi ñoom li ñu waxoon man date ba ma leen waxoon exact man si laa am doom far yàlla daf maa suturaal ba jour boobu exact exactly si laa am doom par césarienne sax doom bu góor laa am fi ne nii woo naa sama yaay avant loolu sama yaay dem na fa ak sama benn tonton fexe ba kër dem kër nijaayam woo nañ ko àllam lu ne wax nañ ko mu dëgër bopp ni kii bi ma amee doom tamit xarit bi woo naa ko mu ne ma non fa ñëw personnellement affaire yi te xarit bi ndekete yoo man imposteur laa ko teg moom si boppam man li ma wax fi ne ni soudoyé nañ euh, xaw ma dañoo soudoyé sage femme bi pour ñu yokk date bi xaw ma nu mu demee noonu te xarit ki ki ma woon ak moom ki ma boole woon ak moom xam nan la ko def da koo jékki woon da convoqué ko fii benn benn police ñu woo waa ji tiital ko tiital ko tiit ko ba waa ji tëj gémminam waa jooju fi ne ni jour boobu su ma nee diw kaay aide mu ma non non non man fi ne ni bàyyi noonu rek kii ma ne ko man fi ne ni man maa moom sama doom sama doom duma xool te du am baay ngénte bi léegi mu ñëw parce que di mais nag moom woo naa ko ci njëkk ci teraanga ci lépp ma du ma ko bàyyi yàlla du ma ko bàyyi jaay na ma doole nag fu nekk nee na ma nag fu la neex dem nag man nag fii rek laa am fu ma yuux gis nga sama xarit bi nga xamante ne fa lañ daan gisee këram mosu ñoo dem auberge këram kër kooku ñu daan gisee kooku noonu la woo wax naa ko si si kii kooku noonu la ñu yóbbu ko police xëpp ko tiital ko waa xolal bu fi ne nii su ma nee ko diw doo ma dimbale si lii waa ji naa ma ah man xale laa ñemewu ma di ma jaay affaire doole yoo xamante ne di ma wan ne parti au pouvoir la nekk moom c'est un maire autorité la am na lu muy def il sorti de l'ENA affaire yooyu di ma di ma wan doole goo xamante ni ak arrogance boo xam te ak insolence boo xam te ne yow ndoy baax di ko def may wax ak moom ci njëkk ci teraanga muy tax xarit bi di ñëw ndekete yow moom man imposteur laa ko de sax man du ma xaritam te li ci gën a metti nag sama yaay dem na fa ak sama tonton ñu dem foofu gis nijaayam nijaayam boo xam ne moom yaayam a bokk ndey bàyyi ñu expliqué moom weddiwul foofu ni gis sekk nañ ko de mu ni foofu sekk nañ ay yoonu yoonu yoonu rapport ci kanamu nijaayam nijaayam du ko weddi si kanamu sama nijaay ji dafa tiit jour boobu sax moom ba mook sama yaay sax ñu xaw xuloo foofu mu naan waaw ni ngeen di def ku nekk maire affaire yooyu ngeen bëgg a ñëw yàqal ko ay affaire yooyu man sama yaay ne ko maire affaire yooyu ba saaga ko ni ko affaire mère ñoom dañ tee faale loolu ma xamal lañ soxla nga ñëw reconnaître sa doom man bugguma mu takk ma tey soxlawuma loolu ci moom parce que man maa ngi tedd xam na ko bu baax man la grossesse bi yëpp yëpp yëpp yëpp damaa assuré sama kii gis nga samay ordonnance sama yëpp man maa ko doon assuré mi ngeeg man ay kayit yu leer laa yor message yi ma la envoyé xam nga ni man ak yow man ak moom yow yi ma la envoyé yow yoo xam te ni yoo xam te man wan naa la carrément ñun ñaar sekk nañ ko sekkati ko ay yoon yoon yoon te du ko weddi xam naa nag li mu am jabar wala li mu am doom moo tax ma bëgg a daw responsabilité man waxuma ko mu takk ma tey waxuma ko mu takk ma suba xamala laa bëgg mu ñëw reconnaître doom na ko ñëw reconnaître ndoy baan bañatuma ci dara parce que maa bëgg a